novembre 2024. 17 ans la bis waaw maanaam dara bettu ci parce que dama la ko waxoon fii ne la après election yi dinaa ñëwaat gën ko leeral parce que bettu woon parce que mënuñu comprendre sénégalais yi fal président même par huit mois ñu weddi la mënul nekk léegi ñu gëgoon di opposé wu dañoo teel a wu te problème yi mooy booy opposé wu da ngay am ay argument mais seen problème mooy dañ ko doon def ak jalousie ak mere guñ mere Ousmane Sonko ak bañ guñ ko bañ noonu lañ doon doxee moo tax Sénégal yi wuy wuñ leen faale wuñ leen parce que tey Barthélémy Dias li mu am ci élection yi gàcce mënu koo paase yaay borom Dakar yaay maire de Dakar gan gi faluma maa fal sam bopp tey gan gi wan na ko moo moo ko fal. centre de vote bi mu voté sax dañ ko fa gàññi. ba baab bi mu dëkk dañ ko fa gàññi ci moom kese non déglu ma rek nit boo demee bay fëgg dënn parce que moom toujours ay analyse am da ciy daanu présidentielle fii la taxaw ne kenn mënul gàññi premier tour ku ko waxit da wax lu la xanaa ñeneen ñu duñ am dara jomaa ñëw jàll premier tour bii paa mu toogaat ci plateau télé ne kenn ndakaaru kenn mënut a mënumaa gañee gañee xalifa Sall gañee Ablaye Wade gañee Macky Sall mënul nekk te dimanche dina leer ana dimanche ba leer na ñoom ñëpp lañ boole gañee parce que ni muy ana non mais ni muy analyser politique moo baaxul moom waxu waxu waxu politique day analyser politique jàpp na ne tur tur nit ñi folootuñ nit ci tur xam nga politique léegi fan la toll dangay ngay am discours am programme te sa discours na nekk discours bu responsable discours boo xam day ànd ak yar ak teggin sénégalais yi foofu lañ toll mais yow nga nekk tête de gis nga Zeyna njiit yombul de jiital leen ma ak naa jiitu du du benn da ngay bàyyi ba nit ñi wóolu la jiital la nga doog a dem. moom dañ koo jiital lu la. bon da doon xëcc pour jiitu ndax am na ñeneen leader yu fa nekkoon mënoon nañu jiital suñu Moustapha wala ñu jiital Khalifa Sall wala keneen ak keneen moom te affaire bi du ci lenn tey trois coalition bu toll noonu. ah du gàcce c'est le choix des Sénégalais non gàcce la bu ñu waxati loolu loolu gàcce gu rëy la ñoom jàppoon na ne lu mu dee dina am dix député wala quinze député ba tam dépassé ay trois député lii gàcce la di nit boo demee bay fëgg dëgg nga ne yaa moom Dakar da ngaa waroon gagné Dakar. waaye MC gisoo loolu bokkul ça rien à voir parce que tey jii mënoo di politique li ma la doon wax sànq sax mooy ne yow da ngaa matul leader ñàkk mat leader mënoo toog ci plateau àdduna bi yëpp di la déglu nga ne ñun bu ñu amee majorité assemblée dinañ bloqué réew mi avion du naaw oto du daw kenn du fay salaire yi. kan moo wax loolu may mën a nduur fay Sénégal yëpp dégg nañ ko mu leer nag non loolu am na koo xam tey naroon na laa votel mais boo waxee loolu du la votel parce que ki nga xam salaire la yaakaar nga ne ko dañuy boole ko réew mi bu doo fay ko salaire ki war a voyage nga ne ko dinañ boole ko avion yi ba avion du naaw ki war a dugg ci oto yi dem doxi soxlaam nga ne ko dañu te ñoom amuñu won programme xam luñ fa nekkon xass ak ngagnante waji waxu waxut dëgg waa ji day nangamtaan waa ji waxut dëgg noonu lañ fi musu ñu wax seen programme ngo di wëd di wax programme fu mu jaar bàyyi fu pousser amul fenn fu mu jaar ci réew mi te yëngalu ko ñoom foo leen gis fu ñu top ñaar nit ak ñet nit a leen top bu leen booy yuuxoo Sonko Sonko ñu attaquer leen di leen door di leen gaañ ba doomi jamm ya di ñu japp ci Saint Louis mënon na ñak mënon na ñak parce que ben programme dafa am tay ji loy bañ ñu wax lako gënal ci politique ndax fi réew mi toll Sonko fi ne loolu la yàlla dogal ku bëgg moom la fi yàlla teg ku bañ moom la fi yàlla teg ku bañ a ànd ak moom it da ngay daanu rek ñu ko fi diiroon mbagg ñëpp wàccee na leen parce que Sonko deful ngir boppam fal na ay maire fal na ay député ba fal président de la république bii pas mooy première élection Sonko boo xam ne moom la soxal woon pour laaj ko sénégalais duñ ko ko xañ dañ ko koy jox. Hmm. ñoo la gënoon xam ne élection nii coow la fi nekkoon rek waaw ami collègue xorom poole nag du ñu benn poole jee leen boole. Macky Sall mi amna moom am na am na am na 15 députés. mais Macky Sall lu mu dee dafa ànd ak Ablaye Wade ñaari leader lañ même bu amee 15 députés ñoom góorgóorlu lañ parce que ñoom am nañ seen programme mais Barthélémy Dias bon programme la wax Sénégal. lan mooy seen problème ak Barthé. non amuñoo ak moom problème wala am non non xam nga Barthé Sonko daa am lu mu ko defal te mu waroon ko koo fay te ni mu ko ko fayee baaxul. yow mënoo toog la tey soo mais problème Sonko non loolu rek rek rek. déglul rek Sonko ba muy choisir Batt pour maire dakaar ñam àndaloon choisir woon bàcc Sonko ne man Batt laa choisir jiital ko ba mu demee da ko da ko fal ñu bàyyi bañ jàpp Sonko mu toog ci plateau yi naan Sonko yaa na fi woon ku dee sa yaay juraat rek di ko xas ak di ko ŋàññ Batt xam nga fan la njëkkee xam may ma ma ñëw may ma ma ñëw looloo loolu mélanger Sonko daf ne am na ñoo xamante ni non non non problème bi du dara demum ci ci ci. ci Macky Sall ci Macky Sall te Barthélémy Dias nee na dafa tàggu Sonko ba nu muy waxee moom la. mujjee loolu ba tey Sonko amu ci problème ndax maman boobu moo nekk maire de Dakar mais ba mu génnee ŋàññi Sonko fa la yàqulee gars yi bi ñu désabonné ci compte am dong dafa tiit boobu la xam ne dee na politiquement mu génn taxaw ne saagakat yëpp génn nañ sama compte. jugewaat fa ne voilà yéen saagakat ya ma doon xas ñëwaat leen ngeen ma ngeen ñëwaat ñu waxtaanaat te moo waxoon loolu day wax di wedd boppam moo ne saagakat yëpp désabonné nañ sama compte. mu xam ne li débal li désabonné ci comptam am bëri nañ bëri goo xam tiital nañ ko nga gis mu defaat beneen vidéo na yéen ñi désabonné woon sama compte maa ngi leen ñaan ngeen abonné waat ngeen ñëw ñu waxtaan loolu war na waroon nga xam ne euh, Sonko rek tiré na foofu benn point te lu ko waral attaque bu mu attaqué Sonko ndax bu bu ko defutoon gars yi jàpp nañu ki élément Sonko la ndekete boobu mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi root rootum guddi hmm. waaw bëgg a fësal boppam wane ne moom ponkal la leader la te na la leer na mairie Dakar bi élection ko fi bàyyi de bu ñëwee suba la élection yi fajar bu yóbboo mu defar ay bagaasam Abass Fall du koy dóor jël mairie bi loolu moo la gën a xam Sonko ku mu fi teg kooku day gañ yow mi sax bu la tegee da nga a mairie Dakar incha allahu rabbi te yéen fi yàlla bàyyi ak jàmm bañ fekkee ko hmm. te loolu waru ko woon moom des na de est-ce que diggante bi du am changement. ban changement gars yi dañuy liggéey ñii doxuñ fi gis nga nguur gi mënul essuyer li ci Sénégalais xeex de ci nit loolu ñii dofuñ jënd fi di nelaw nit ñi dañu pare pour liggéey réew mi ku fi nek ci gouvernement bi ñu jox la poste bo liguel ñu dakal te boo sàccee xaalis bi dañ lay japp dugal ci kasso bi Sonko wax na len ko mu leer ñii dañoo paré pour liguey gerte gi 305 c'est la première fois mo am ci histoire Sénégal loolu duñ ko apprécier courant beeg ndox ma ngi bientôt né na dinañ ko wañi te loolu sénégalais soxla nañ ko ah emploi des jeunes léegi champ nañ ensemble léegi nañ xaar buñ waté budget xaalis bi commencé génn ko am sa projet nga duggal buñ la féké mën nga bok ci ñiñ financé nga jël so mënul nga xaar ba déwén ndax réew mi kenn mënu ko xey dafar ci ñaari fan ñetti fan réew mi ñu yàq 60 ans kenn mënu koo defar ci benn fan ñaari fan mais Barth dafa amoon carrière politique bu rafet boo xamante ni bu tagoon ci lancé boobu 2029 mën na laaj présidentielle même bu nekkul président mën na am dara mais instant bi dafa rey boppam politiquement gis nga wax dafa am solo suñu borom dana wax xooloo li naa si nan dee leen wax ci nit ñi lu rafet nit bu ngeen àndee donte benn fan ñaari fan même bu ngeen tàgguwut bu ko xas bu ko ŋàññi hmm. waaye sama doom day sama doom day tubaab nga xëyaat ne ki ma leen ki ma leen wax sama doom nday du waxtu dëgg. dafa ñam yaa aussi leen moom. kese ban soutenir waxu fi jàppee Sonko la taxaw di ko xam nga mu soutenir dem ba mu jàgg ma naan suy génn kaso samay loxo sama loxo da ciy dugg bi muy génn kaso loxoom dugg ci te Sonko génn ci kaso bi loolu mbirum suñ borom la suñ borom noonu la ko nammee woon wolof da ne nag ko wax feeñ. Hmm. waaw nit boo amee moom problème même bu nee jafe-jafe sax dencal problème bi waxal ko lu baax protéger ko ba keroog muy génn ngeen toog rek la seen problème kon baax na mu ngi noonu euh, mu nekkoon mbirum euh, élection yi ñu résumé ko ñu gis ni euh, lënd bi ñu génn muy barki démb daal di nañuy installé ñi nga xamante ne moom mooy suñu ay député yu yees yi donc ñu gis fa aussi loo xamante ne tey ñu ngi doon ne kan mooy nekk li nga xam ne moom mooy président assemblée national ñee naan Ousmane Sonko la waaye ginnaaw loolu Sonko ca fajar